allahu akbar allahu akbar ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah hayya ala salaati hayya ala falaahi qad qaamati salaatu allahu akbar allahu akbar la ilaha illa allah allahu akbar allah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 wakfinaa bijaahihi fiala kulli ma laa tuhibuhu wala tarda xatta nalqaaka raadina mardiyina amin ya rabbal alamin allahuma bihaq wajhillahi taala alkarim salli wa sallim wa barik ala sayidina wa mawlana muhammadin wa alihi wa sahbi واغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات